ahlan bikum xàtteb son ko ak Adji saar fañ koo dàq ba ñaar fukki fan ñett ci weeru mai bi yéenekaay yu bari fa ñoo xëy di ñu ko xamal info yéenekaay moom fa caa yokk leeral xana lan moo waral ñu dàq ko yaaw seetal procureur fa def ak njuumte ndax fa woolu Ndeye Khady Ndiaye mi nga xam ne fañ koo tuumaal déglu ko ngir waajal àtte bi te diggante bi mu ko déglu ak fi ñu waroon a àttee matu sax ñetti fan te loolu yoon fa ko tere code pénal 246 fa wax ne lu mu gàtt-gàtt war naa ëpp ñetti fan diggante boobu lii moo tax xattekat ba na kon faa koy randal avocat défense ba nag ñoom fa ñoo sàkk woon ñu dàq ko weer ak fukki fan juróom ndax ñu mën a waajal layo bi ndax fa wax na dossier ba fa bëri lool 271 paas la am na ay vidéo am na ay audio loolu nag fa laaj temps bu yaatu parquet ba ak xattekat ba na leen fa bañ kenn mayu leen fi lu ëpp semaine maître Khouraychi Ba avocat Ousmane Sonko ne faa leen di wax ne Ousmane Sonko bu ñëw tey ci atte bi lu ji njaag gouvernement bi ak kilifa yi la ndax su fekkonte ne fa faxe ba Sonko mën a am kaaraange fay ñëwal boppam waaye koo xam ne boo waree dem xàtte fañ lay fitnaal takk der yi sa kër fañ koy bloqué ak yeneen yu kenn mënta wax maître Youssou Camara ba tey ci avocat Ousmane Sonko yi na faa lañ ci yokkal gis ngeen Ousmane Sonko su fekkonte ne jox nañ ko convocation ñun ñii di ay avocat am fañ koy digal mu ñëw tribunal ci atte bi donte moom nag mooy jël dogal bu mujj bi ma ngi ko waxee ci Les Échos yéene kaay maître Khoureychi Ba dëggal ko ci info yéene kaay na ko Sonko moo gën a bëgg ñu xàtte ko ndax dëgg gi feeñ maître El Hadj Diouf avocat mel ni ku naan ko déedéet Sonko fa daw moo fi doon wax naan fa yàkkamtu ñu xàtte ko Adji Sarr moom noppi na te fay xam ndam moo tax dawut Vox Populi ne ca buntu tribunal ba xeex bu métti moo fa xamoon démb dox ci diggante benn sandarme ak benn élément bip boo xam ne garde corps Adji saar la yor yor yéene kaay na lii fa ñaaw police ak gendarmerie di xeex ñëpp di leen seetaan turbine yéene kaay moom fa jàppee mbiru Adji Sarr ak Ousmane Sonko yi wàllu théâtre comédie jëm ci wàllu atte Sonko nag mënoon naa nangu ñëw fekke atte bi ngir moytu deret ju tuuru ak tamit moytu ñu ko ginnaawam fukki doomu aadama juróom-ñaar yi ñu ci rey nag ba léegi mujjut fenn l'observateur na ko xale góor ba ñu rey kër mbay faal ndeysaan ay waay juróom ña ngay jooy jooy métti naqar ak tiis ba ñu àndal vox populi na ko jëwriñ ju ñu dénk wàllu biir réew mi fa wax ne xale bu ñu rey kër mbay faal paaka wala jaasi yu mel noonu moo ko rey ndax feñ faa fekk ay gaañu-gaañu yu mel noonu waaye njabootu xale bi weddi nañ ko nee na du dëgg seen doom ji balu feta la ko rey source aana xale boobu fukki ak ñaar rek la xam Pape Amadou Keita tudd ndeysaan ngoon googu li mujj a def bi neuf heures jotee seen kër wifi ba am problème connexion mu génn dem ca boutique ba ànd ak ñetti xaritam jënd nañ fa sax jus waaye bi ñu ñib si nag tombeeg yëf yi rek ko tiire bal mu faatu ku fekkee yëf yi nag nee na ki ko tiire bal solum tenu takk der dem dikk ya seen dépôt ba lañ fa taxal xëpp na fanweeri biis alerte yéen e kaay na ko manque civisme rek la wala fajir yéen e kaay ne mbiru Adji Sarr Ousmane Sonko yi ñaxtu yi ñu ci faatu fa ñoo bëri te ba léegi jàppuñ ci kenn te kenn waxut ne kii moo leen rey l'observateur na ko yàq gi tamit fa cee bëri te mooy yéen kaay na coowal viol bii li ci réew mi ñàkk fa bëri ba jégg dayo yaaw seetal lu jege fanweeri doomu aadama rey nañ leen ci liñ ci yàq ci xalal lu jàmbur fa bëri hay yu bëri ak ay bés yoo xam ne réew mi liggéeyuñ ko faa koy dëggal démb ndakaaru njaay presque kenn liggéeyut école yi moom kenn jàngut te mooy ne ko faa ci yokkal soldaar si fañ leen ciy dajale te fay laaj xalal ju bari wàllug yoon doxalinam ci Sénégal bu ñii ne tëddeewul njaaxaanaay ña ci des na aa ah, ah. ñaari xatu yàlla fu ñoo téye otaas réew mi ci mbiru tuumal wàllug siif Cheikh Tidiane Dièye mel ni ku naan loolu yëpp nag du dara lu ma njiitara Macky Sall fa bëgg faagaagal gént goo xam ne ay millions kan journaliste ne fitna ji am ci wàllu politique bi man njiit réew Macky Sall laa ciy woo ma ngi ko waxee ci lii yéene kaay kaay mel ni ku naan leen ñi ñuy rey ci ñaxtu yi jeexagut de démb ci talaata ji xam na keneen ku faatu ab takk der la sandarma ca Goudomp indépendant yéene kaay dëggal ko na ne daluwaay sandarmeri bu Goudomp gaaya fañ ko attaqué kër DG bu sab ko fañ koo rajaxe regard yéene kaay na sandarma bi faatu fa doon jëfandikoo fetalam nga fal mu dal ca kawam maanaam fa fetal boppam te tayut ko yéene kaay bi ne Ziguinchor ñoom ba léegi ngay ñaxtu de démb fañ ko caa tegaat donte sax atte bi dàq nañ ko waaye ñoom neneen duñ bàyyi fa ñuy continuer naka noona Sédhiou ak Goudomp Guy Marius Sagna ne police nag fi mu fa ñoo gën jege kër Ousmane Sonko mu ko waxee ca li yéene kaay maître Kélé Sirador Ly avocat Ousmane Sonko ci Walf Fadjri ne faa bëgg ngeen xam ne Ousmane Sonko amul benn bataaxal ñu dem jàpp ko andi fa caa yokk ne gis ngeen nguur gii li leen intéressé du dara lu dul fexe bari ba jéggi dayo yaaw seetal ginnaaw ña ñu jàpp ca Pastef bu géewal diiwaanu luga tamit fañ faa jàpp activiste bi ñu wax Ousmane Sarr ñu ne déete waay journaliste bu jigéen bi ñu wax Mati saar ñaa moom i takk dere fañ ko teg loxo ca ginnaaw raay appel ci wàllu instruction saaga ñàkkee teggi njiitu réew mi ak yeneen ni ni moom lañ ko toppee Modou njaay borom Bambey TV moom it teg nañ ko loxo Omar Sakho bokk Pastef Touba fañ koo jàpp moom it Yoba Balde bokk ca Pastef Kolda moom it koo jàpp ak ñeneen ñu bokk ma neex moom it fañ koo jàppoon ca police bu tëngéej waaye fañ ko mujj bàyyi leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ñi ja mooy ne ñetteelu édition forum bi ñu jagleel wàllu numérique door nañ ko Sénégal Dakar Times moo ñu ko xamal Le Soleil yéene kaay na njiiti réew mi Macky Sall nag ba mu fa demee ca forom boobu ginnaaw engagement ya fa daal di artu ci ñi nga xam ne ñooy jëfandikoo wàllu réseaux sociaux yi tàggat yaram Inter de Milan dem na finale Ligue des champions fa mbuqi Milan AC benn bal ci dara stade yéene kaay ñu ko xamal tey nag ci àllarba ji jongante